Ndeye Faye ngi bi quoi. Ndeye Faye. anniversaire bi neex na. Uh-huh. kii gel <laughs> bi resto ak góor mu goree. mu génnee dix jox ko ko jëlal taxi. waaye jàdd dese benn cent franc jël car dugg si car bi fekk fa gel bi toog. <laughs> ko fekkee noonu mu toog abrante bi ñëw di jël paas gel bi di ko jox taw yi rek waa ji ne ko ñaari paas léegi moom ñu wàccee ñoom ñaar mu ko andi sa wecc waaw Cheikh waaw ni saa lii sëñ bi mën a mën bañ a xiit ci bëccëgu weer koor ah. moom ngay takk moom nomb gii nii moom nomb gii da nga naan nii rek bu ma xiif takk moom gaw la benn naa mi boo xiif boo gawee doo xiif nii ko ci yàlla doo xiif ah waaw siñ boobu moom ay na di bii nag. bii moom pour jigéen ñi sori la ci weeru koor bi bëccëg gi. ah bëccëg gi pour nga mën a sellal. waaw naam boo gaawee jigéen ñi kenn du ñëw. Eh, jigéen ñi lay sori. ñëppay dem da ngay mel ne neefare ci ñoom. ah ci bëccëg. neefare ci ñoom laa la jege fenn. ah bii sëriñ de waroon naa ko am ah, nag moom. bii moom. Hmm. Euh, pour ndogalu neex. neex. ah xaaral boole sëñ bi. ah sëñ bi kay nag ne nga ne pour. ndogu day neex maanaam doo xaar rek. ci ndogu day ñëw. waaw ah moom dina baax di bii nag. bii moom boo ndogoo ba pare. Hmm. jigéen na yow ñëwaat. xaay guddi gi xanaa du yaa leen dàqoon. waaw ah, waaw boo ndogoo koor gi jeex na. jigéen ñi ñëwaat. waaw. léegi xoolal. Eh? fi am poteau yi fële. waaw. <laughs> Ah, fi am poteau yeye. Eh? kër googu. waaw ñaari kër yooyu. waaw après jël. yooyu laay jël. waaw neex. <laughs> daa bàyyi. <laughs> Yo, namo, tato, sa, na, shopper. malaat statine fase statine gaaruwaale yéen xale jigéen astat bàmmeelu biir ah lu nekk rek statine yéen dëj lépp yéen lu ñor rek Dakar Auchan Brioche Dorée New Rive saison duul demoon leen fen estati ngeen di duul lekk yéen des fois da ngeen tàggoo ne maa ngi king di duul wala niw riw te yéen a seen kër di nelaw yéen lu leen métti yéen ana da leen denc man yaa leen mën seede leen lay lay la la lay lay la man de waaru naa kenn du sëñ Babacar seede leen saran bi taxaw ya nga yàlla leen te taxawal. defal ñu ko tànk. un deux trois la ñu dem un deux trois. pepe kale reer. kale kale. ndogu ah ndogu ci la bokk de buy ñaan yàlla ñaan ko ndogu ndogu yi nag ndogu bi ci baax

tu l'as Tu n'as jamais fait de khesal Jamais de ma vie. sama diw François Baudin vingt cinq mille lay jàpp. Mor sa teint bi set. François la. Baudin lay diwoo. waaw vingt cinq mille lay jàpp xale jigéen ñi amuñu ko. France nekk sato rouge dëkk Thiès bëgg ma lool waa Adja li neexul. waa li neexul seen doom bëgg ma lool di ma ñaan nekk sama dom ndey sama xarit wa aja li neexul. nga dem toog booy nappi amoo mbaal lalal pajas, da ngay xaar gaynde gu jigéen laa bu ma lay màtt xolal fii laay jàpp te bu daggul duma la bàyyi foo ne. boo doonee ma doon si ndax comme ça ma dem dugg ñoom ñoom. dañu ko boon ca néegi jànkeet yi jonde la faar ani samba jàppuloo jéeri bàkk naa ji naa mbokkim ndey yum si borom savanel man de woon naa la way naa ay waaw waaw samba way naa